docteur Macoumba Diouf suma mag suma xarit vraiment suma doomu ndey ndax tey su amee bés bu mel nii invité ci damay sawar a ñëw parce que daf may invité sumay biir mbokk bokk na ci gën a neex parce que ku ne xam ne suma wàllu papa séeréer la suma wàllu yaay ku ne xam ne nii séeréer joolaa benn lañ nag dama am vraiment contentement vraiment di saabonteeg tey su may mbokk su may supporter su may am di jàmm ba tey euh, ku mel ni docteur Macoumba Diouf bu xewlee lépp lu ma jàppoon dama koy bàyyi ñëw ci bésam bi vraiment nit ku sonn la sama combat te dem aussi nit ku may jàppale lan méngee nun la teeroo ak noo gisee lamb waaw nu ma teeroo vraiment rafet na trop ma tam aussi vraiment jox na ma daayoo moom moom barta bu berapa lima li mi woné né lamb tan kanam la waaw ñu wone gëna ci gaay gëna japp ba gëna suñu tuddé ni mom lañu xam mom lañu tay lén lu fi ñëw war ci yalla mais li muy lamb nañ ko gëm sa culture culture dëkk mooy gëm sa bopp c'est important nañ ko bañ a bàyyi mu nax saay merci. ñu tëj ci ponk boobu ëmb am na combat war a dajeeg Bombardier saison bi dem na nang na lu sori ndax am nga yaakaar ni combat boobu di gën ko bëree a kale ministre Matar Ba maa ngi profité ci occasion bi ñu koy nuyu parce que vraiment nit ku jox mbër dayoo bu moom la nit ku gëm cosaanam la nit ku gëm làmb la ba tax na wax dëgg yàlla ñu koy ñaanal bépp fu mu bëgg a yegg rek yàlla ko yàlla suñu borom yeggale defon nañ ko daw mu neex lol mo do ñu dafaat ko ren ko dal ci galtal mom jarnako suma doomi di soxna am jarnako ko lol dal moy fi suñu tan ñu am biñu dëgg ta contane lol ñun programme biñu amone ren xeyna bi ci la bokkon mais yéré di wala togon lu yag mo tax defuñu ko am nañu yéene bu déwénee bu ci yàlla àndee ñu def ci lu bëree bëri. làmb moom liggéey la rek ak góorgóorlu muñ te neexul ci gàttal daal làmb sport la mais bokkul comme yeneen sport yi am na boo xam ne boo ci buggee yóbbu ci buggee yegg da nga sopp rajo suqali gox cosaan ba ngay njëkk a saxal d'abord ndax ca la nit ñi di jaay pour gëm seen bopp lan moo tax nag ma def ko ci contexte bi ba pare mooy dafa tombé son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal woote loolu ñuy wax en daal émergent fekkoon muy ñaxtu ak ndóol fekkoon gouvernement yi fi jógee di wax ne nañu xeex ndóol mu ne déedéet xeex ndóol day gàtt lool nañu yokk gis-gis maanaam nañu liggéey lu tax réew mi suqaliku suqaliku bu jolli te comme nekkul lu nit mën a def ci benn wala benn weer wala benn at ñu defal ko diir waaye jël matuwaay yëpp pour que diir boobu ba yegg si réew mi suqaliku